soo ñëwee si dëkk mel ni Rufisque nga gis ne que président conseil départemental taxaw gis maire yi taxaw gis communauté bi yëpp taxaw parents d'élèves yi kenn desul nga gis également service d'hygiène préfet muy li may wax ne synergie boobu am na fii si Rufisque et donc mun naa wax ne que conditions yi sont réunies pour que fii ñu mën a démarrer dans de bonnes conditions école bu mel nii gis nga léegi matériel bi ñu fi indi bari na au niveau service d'hygiène ils ont désinfecté les écoles yo gis ko et en même temps comme il y a que 100 élèves nous avons 105 élèves ci école bu rëy nii moom nee élèves am yi aussi les enseignants donc dinañ len muñu ñu dispatcher ci classe yi donc nous avons wax né fi daal li ma fi gis ah, en tout cas sama xol vraiment c'est bien je suis très heureux content Sénégal comme 500 moy juróomi témir en tout cas junni ah, ak lu teg ñoo wara et le protocole sanitaire bi y 3 masques lavables par élève moy 1 million mais nous, avons 2 millions de masques parce que encadrement bi ci no bok donc 2 millions de masques pour cette école au niveau national si nous faisons ce calcul pareil, paré dem férié la mais dañu liggéey toute la journée ñun avec le ministère du transport 19 000 enseignants lañu wara transport amna 4000 lu tek ñoo xamne ñom ñoom ñoo Dakar di dem amna na 17 1700 ñooy jógee à l'intérieur du pays di ñëw Dakar non la mel ci région yi Ziguinchor Kaolack partout légui nak jël nañu disposition moy que état bi du Sénégal mom moy réquisitionner Dakar Dem Dikk CETUD lu ñu mënta am ces matériel ñom ñokoy koy réquisitionner suñ ko réquisitionner ba paré dinañu am son plan de voyage le 26 nous commençons à déplacer enseignants 26 27 28 et 29 partout dans ci Sénégal.